أبدا def farata yàlla ndax mënoon naa nekk yoon boo xam ne nit ñi dañuy sonn ci dem ci ay tëgg ak fecc waaye bu ñu sonnee ci yoonu yàlla ah loolu nag yàlla dañuy wax ni mooy yoon daan génn di jottale kàddu laa ilaha illa allah di dox di yéegi montagne di daanu di gaañu mu jaral leen ko ndax xam bu ñu xam ni yàlla bu liggéeyloo jaaram dina ko fay kon ñoo ngi am kontaan ak ñoom bu rafet dëgg yàlla ci gis sabab yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi am yëg-yëg ñun ñu nit am nañu bu ko raw di wax ni dañuy ñaan yàlla fépp fu ahlu sunna nekk ci xutru bii di Sénégal bi ak li ko wër bëgg nañ faa àgg ndax loolu dafa nekk waajur ci ñun dafa nekk wareef ci ñun ndax ay ndaw yoo xam ni dara ñoru leen lu dul diine te wallahi moom laa gis ci xar kanam yi te yaakaar naa ni sama yéene yàlla du ko tas te sama yaakaar it yàlla du ko tas ci yaakaar bi ma yaakaar ndaw yi toog nii ci haadal masjidul mubaarak di ñaan yàlla yàlla yàlla tiir ñu boppam fitna yi bëri na waaye yàlla mun nañu ci musal te it dinañu ci musal ndax yoonu yonent bi ku ko yore إن شاء الله ليتمن الله هذا الأمر نتيجة نشكر يا بدل بدل بالملك إن شاء الله dana dem a dem ba ci baytu mawar baytu madar lépp dana fa àgg kon loolu sant yàlla di wax ni yëg-yëg bi ma am sori na lool lool lool lool lool ndax jullit mu bëgg yonent bi lu mel ni ni ngeen ko bëggee bëreetul ci jamono ñu bëri ñu ne dañoo bëgg yonent bi leneen la lu koy boole tey nag bu nu yàlla maye ay sabab ay ndaw loo ni lan moo leen ñor xam-xam lan moo leen ñor sunna lan moo leen ñor alquran wallahi loolu mas na yaakaar loolu yàlla na ko ko yàlla tax mbooleem ndaw yi nekk fii ci Gambie noonu tey dund sunna yàlla na yàlla leen ba seen kàddu mën a àgg fu ne ba ñu mën bii ak yiw bii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indil xeet maa ngi leen di ñaar di leen wax ni da ngeen waaye nag àgguma fi ngeen ko def yaakaar bi ngeen am ci ko waaye yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ci ñun Abubakar Siddiq radiyallahu anhu suñ ko mosaana waxal lu mbaa ñu ko lu mel ni ci cofeel daana wax boo xam boobu xam ngeen Abubakar mooy xalifatu rasulillah xaqan mooy xalifa yonent bi te loolu ku xam du ko wér Aboubacar nekk na xalifa avant muy génn àdduna ndax moom rek la yonent bi jiital saxaaba yëpp fekke ko moom rek la yonent bi ne laa yabqa fi lmasjidi baabun illa sudda illa baaba na jàkkaar jii xam ne bëri woon naa ay buntu bu nekk fu la neex nga jaar mën a dugg yonent bi bàyyi woon mu demee bay bëgg a génn àdduna daal dina koy defaraat xam leen ni benn buntu dong ngay am ki ciy jaar xam leen ni ëllëg moo leen jiite lan moo tax ndax yàlla subhaanahu wa taala wane woon na ni Abu Bakr mooy àndandoo yonent bi ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن incha allah Abubakar suñu ko mosoon a gërëm tàgg ko day wax rek ni allahumma la tu'akhidhna bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun muy wax bu rëy mooy yàlla fi ñu ma teg bu ma ko jàppee ndax ay nit la ñu xamuñu comme ni ma xamee fi ñu ma teg bu ñu xamoon sama biir ak sama biti amal na dinañ ko xeeb lool waaye yàlla sikk ba tax loolu bët yëpp kontaan kanam yëpp kontaan ci jàkkaarloo jaam bii nga xam ni kuy mooy yàlla jaam bii nga xam ni li ngeen yaakaar ci moom yaakaaru ko ci moom wajaal ni xayran mimma yaxuddun njort bi ñu man lu ko ëpp yow yàlla maa ngi ñaan nga defal ma ko mooy yàlla bul tas seen yaakaar ba ñu naan nangam nangam ëllëg duñ ko gis kon loolu yàlla yow mi def loolu ci ñoom yàlla na nga ñu ko defal mu tekk ni war firli maa laa yaalamoon yàlla jéggal ma li ñu xamul ndax nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm lépp dafa lëndëm dafa sew koo xam ni yaa guddi gi kenn yëgul yaa bëccëg bi kenn yëgul yow dong mën ngaa def lu ne yàlla mi lay xool nag te nekk alqaadiru fawqa ibaadi kooku moo xam ne lépp yàlla moo ne ñu lay lu may delloo fi di wax ni nanu góorgóorlu ci xam-xam mbokk yi inna haada diina ilmun fanduru ila man taaxuduuna diinakum fanduru ila man taaxuduuna diinakum wallahi kasratu fitan wa taraatarat mulhiyaat fitna yi bari na jaxase yi bëri na wallahi saaratil bidaatu sunna wallahi tey dem na ba caaxaan dafa mel ni mooy dëkk loolu lépp nag ne jullit bi xam ni salaatul badiia rek ak lu mu am am doole bi idnillah yàlla dana ko faagaat ndax yonent bi du fi bàyyi lu yàlla yi ñu koy yàq yonent bi il faut boo set ay nit ñëw bugg ko tilimal il faut yàlla dana ko ñu taxaw pour loolu denc yàlla ñu yàlla boole di ñuy taxaw pour loolu denc waaye yàlla ñu yàlla téye boppam sabab yi wallahi maa ngi leen di dégg ak sunna sunna rek koo dégg wallahi wallahi dañuy wax laa sori la yàgg ci suñu bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fi bàyyi suñu nga waxtaan suñu nga def bàyyi bàyyi suñu nga def ku nekk ñu nga yëg ni responsable la sa bopp sa kanam waaw moom tamit gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dund la dundal sunna sunna nii li koy xeex bëri na lool côté bu nekk dañ koy xeex waaye incha allah yàlla li mu wax mooy dëgg in yansurkum allah fala ghaliba lakum wallahi bu leen yàlla dimbalee kenn du leen mënal daal te kenn ku koy dund sunna incha allah yàlla dana dimbal mbokk yi li tax sunna di am jafe-jafe xam-xam dafay réer xam-xam dafay réer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha la yaqbidu al ilma intidaa bi qabdi انتزاعا ينتفعه في صدور العلماء ولكن يأخذه بقدر العلماء حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالم فاتخذ الناس رؤوسا سبحانه وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam waaye yàlla du ko rocc ci gën ko nga xamoon dara jekki sama xol yàlla du doxalee loolu waaye ñu ngi koy defee xool wala ma rabbaatu fuy ñooñu yàlla da leen di jël benn mbokk yi ñi baax ci ay borom xam-xam salafu saal ñiy dundal dëkk bii seen fan du mën a gudd lan moo tax seen fan du mën a gudd dañuy dund ci al fitaru ne nga baatu ba xawlaw ay mbiri fitna yu bëri ay kaso taxaw seen kanam ay saagaatu dóor taxaw seen kanam xeeb leen taxaw seen kanam loolu lépp ñu koy dund ànd ak di muñ ànd ak di muñ loolu moo tax da ngay fekk a weex da ngay fekk dañuy teel a bejjaaw du nekk sax seeni at waaye li ñu yenu moo nekk responsabilité bu rëy danoo coono danoo yenu fitna ndax lii fitna la coono la yàlla mi leen mooy lu mel noonu nag dana tax ñiy yor lu mel te nekk rabbaani yuun borom bi da leen di jël dootul bàyyi ku mel ni yow moo tax mbokk xam-xam ñëpp fi déggoon mu baax ragal yàlla su génnee àdduna du bàyyi ku mel ni moom su fi bàyyee doom bu xamit du fi bàyyi doom bu jubee ni moom su fi bàyyee doom bu moom yëg-yëg bëgg-bëgg kon yàlla day jël xam-xam waaye bu ko jël rocc ko ci dënn góor waaye day rey di jub te baax mais hatta ida lam yabqa yàlla day dem ba borom xam-xam bu taxaw ci yoonu salaf day néew borom xam-xam yu bëri na waaye kii wax yàlla nee na yonent bi leen a sellal ko yi seetlu leen ko bëri ko bëriwul am na sax ñu ko bëgg waaye fit yi duñu ko am. am na ñu ko bëgg dara du leen ko may am na ñu ko bëgg seen i mbokk yu leen si bàyyi ndax xam nañ ni lii ku ko sóoru yaa ngi suuru ay natt yu nekk ca kanam ragal tax ñu bàyyi ko loola moom mooy ka wax sunna dootul yomb ndax kat moom ku jël sunna di ca wax bu yeboo bu yaboo rek nga wax la yonent in ajriya illa ala allah fay nit ñi amul ko de la fay li ngay liggéey la koo fay soo ko yaakaaree ci nit ñi utal ci yombul ñi ko mën yàlla dañ ko yàlla mën loo mën ko bu nee na bu loolu amee day dem nag ba fattaxada naasu ruusan bi nit ñi ñëw na ci imaamu jàkka ya dootu la xam sunna ndax boo nekkee imaamu jàkka taxawal sunna julli woon ak ñoom timis ca na ko salaatu saa yi doon jullee ñu ne la xanaa yow amoo soxla xanaa yow amoo mbégte yaa ngi ni julli gi dafa yéex ndax ngeen koy dégg soo jullee ñoom gën a metti nag soo ñëwee jël la yonent bi jëloon ñu ne daa weddi mag ñi dafa bañ mag ñi da leen a saaga da leen a xeet ñépp daal lay xeet loolu bu mu ñu jaaxal sunna la sunna la ci kaw suuf mooy képp ku yor dëgg rek da nga jaamaar loo baaxi ku yor dëgg da nga jaamaar loo ak caaxaan caaxaan yooyu nag kuy jaamaar loo ko bu yoboo nga fexe nga muñ te bañ a tontu muñ tey wax rek li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal mbokk yi bi nee na dana dem ba nit ñi la ñuy laaj ña ñuy laaj dootuñu nekk borom xam-xam suñu leen laajee ñu ubbee leen te lañu leen di ubbee bakkan dong lay doon bakkan dong lay doon moo ñuy ubbee fa doon ña ñuy ubbee réer ak abamu ay di réer di réer xam nga ni nekk borom xam-xam yu yaakaar la nga nekk ci wala télé waxaloo nit ñi li yorante bi wax di wax nit ñi maa ngi jàpp wax yow ci dul laa ji nga bokk réeram tax yi islam jooy ay doomam ñoo ko ay doomam ñoo ko njëkk jàng ko tëral ko ci mbedd ak ñoo ko fàtte kon maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam waaye ñu fexe teg xadis la ñuy ji suñu kanam mooy man kadaba alayya mutaamida falyatabawwa maq'adahu min an-nar mbokk yi yonent bi nee na képp ku ma fenal nga waxal ma lu ma waxoon bu yeboo nga xam ni fexe xar xare kon loolu nga xam yonent bi xool seet ko de bul bëgg lu neex nit bul bëgg lu neex bakkan bul bëgg nit ñi ñu ne waaja bul bëgg ñu ne moo am xam-xam xoolal li yàlla wax yàlla day lay taayam la loolu ci alquran waxoon ko ulama banu israil ak yonent yi la tubayyinunnahu linnaasi wala dëgg ji da ngeen koy wax nit ñi rek du yëpp su dul loolu ba dee leen fi indi njëriñ kon maa ngi dégg sa bopp sàkku xam-xam yéen ngi dégg borom xam-xam teew fi ñun ñëpp nañuy sàkku xam-xam ba ba ñu dee ñun ñëpp dañ leen ci góorgóorlu sabab yi maa ngi leen di dégg ñaar góorgóorlu ci xam-xam waaye tasfiya yi góorgóorlu ci la ngay xam nga sellal ko boole ko teggin ànd ak ñi la féete kaw yërëm ñi la féete suuf. soo ko defee borom xam-xam boo déggee di nga am ci moom borom xam-xam dafa mel ni sabab foo ko déggee boo déggee rek moo amul fu kon boo bëggee jël xam-xam ci borom xam-xam fexeel nga nekk ci suufam nangul ko déggal ko fexeel li mag ñi doon wax charte Moussa yaa xabib déggal charte Moussa yaa xabib duñ ko jàngatee dana gis ni yar rek ngay seetlu ci biir. da ngay gis ni bëgg xam-xam ngay fekk ci biir waaye da gis ni ñàkk jiitu ci borom xam-xam ndax ki la ëppale xam gis loo gisul soo ko bëggee jiitu du la moo tax Moussa ba xadir bët ne gaal ko wax lu ko wax mooy def nga musiba lu bënn gaal gi na baat bu ko xadir tontu wax ko mooy lu ma la waxoon Moussa ne baal ñu dem nag mu rey nit Moussa da ko def nga musiba mu ne ko lay lu ma la waxoon Moussa da ko bu ma ko jàppee su ma ko defaatee ñu tàggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bi wér mu ne ay waay yoon teel na Moussa koo yàqanti munoon naa di ko yàqanti ala kulli haal li ma bëgg a wax mooy doo xam boo teelee dugub doo xam boo teelee beru doo xam boo teelee bëgg ñu ne la waaye jaay waaja doo doon waaja kon sëggal incha allah utal ne jàpp topp bu yàggee rek yàlla may defal mbir yi maa ngi dégg fan la ko dégg ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah